salaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo mi nuyu naa ñëpp seen mbokk la professeur Abbas maa ngi ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal sun bopp mu mel ni am na mbokk mu doon laaj ay leeral ci tawat bi nga xam ne moo ko dal muy hépatite te hépatite A la doon laajte sax moom nag nee na dañ ko saytu ne ko a ah, danga nga amee hépatite A mu ciy laaj lan lañ ci xam ak ndax mën nañ ko ci jox ay tegtal muy laaj bu am solo waaw hépatite A am na nga xam ni sax B bi lañuy ñuy gën a dégg nag hépatite B waaye am na hépatite A am na B am na C am na D am na E gis nañ sax yeneen xeetu hépatite yu bees mu G ak F naam nag yooyu yooyu bëreeguñ waaw yu gën a bëri kon yi ñu gën a gis mooy bi ñuy tuddee hépatite B wala ñu tàmbali ci tàmbali bi A wala B wala C ak D ak E waaw xam naa tur yi dina xaw a jaaxal nit ñu bari waaye li ci ëpp rek ci màndarga virus virus ba la xëy na ni mu lay duggee rek moo tax benn bu ne ñu wutal ko turu boppam euh, bu dee hépatite A virus ba VHA la. bu dee hépatite B virus bi koy joxe VHB la waaw kon nag bu dee CVHC la bu dee DVHD la bu dee EVHE e la waaw gis nga nag coow li rek moo ci nekk ak ñu tuddee ko xeet tur yooyu waaye gis nga hépatite yi yi nga xam ne boog virus ñoo koy tegee ah virus ndax hépatite yëpp ñooy viral am na hépatite yi nga xam ne virus virus joxewu ko liñ ci mën a wax sorewuñu waaw sorewuñ ni ñuy dikkee waaw te gis nga boo buñ demoon sax ci wàllu traitement it bu dee di ci ci wàllu ñun ci li ñuy indi ay leeral toujours mooy waxtaane gàncax gi ak yi ñuy faj bu ci mën a doon traitement bi benn benn la bu dee ci wàllu gàncax waaw moo tax man la médecine rek moo dem mel ni li compliquer affaire yi xaaj ko ci ay pàcc-pàcc ne A bi nii lay mel B bi nii lay mel C bi D e. te nee naa leen léegi sax e, ginnaaw E rek am na am na am na am na G waaw na F te li gënoon jaral leeral rek mooy bum ci mën a doon daal hépatite yi mën nañ leen rek xaaj ci deux ci deux formes li ñuy tuddee hépatite virale ak li ñuy tuddee hépatite toxique waaw xam nga danañ danañ da ngay dégg sax ñuy wax hépatite médicamenteuse hépatite bi nga xam ne ay médicaments ñoo koy tegee waaye boobu dañ ko boolee ci toxique rek kon nag ñi nga xam ne dañoo am hépatite virale mooy ñi am hépatite bi nga xam ne doomu jàngoro yi benn ci ñoom moo leen dugg muy virus A bi muy virus B bi wala C wala D wala E wala G wala F waaw kon kooku mooy hépatite virale virus yi nag nañuy wàllante bëri na xëy na benn bu nekk na muy kii bañ a bañ a guddal wax ji rek waa wàllante ci dret am na wàllante ci wàllu man yu am na wàllante wàllante ci ci ci ci li ñuy tuddee sécrétion ci tubaab. liy jóge ci kanamu jigéen waaw man mën na amit waaw wala yaay ju ko yaay ju ko wàllu doomam yaay ju amee hépatite wàllu ko liir liiram waaw liir bi juddu ñu gis ci moom jàngoro ji waaw yooyu hépatite hépatite yooyu lañ tuddee hépatite virale wàllante daal boo ci jël rek xëy na am na am na melukaan bu muy bu muy wàllante waaye boo seetloo ba seetlu daal moom ñoom hépatite virale yi sorewuñu sorewuñu sorewuñu ba ci traitement sorewuñu daanaka lii lii faj A bi mën nañ ko fajee B ak C ak D ak e ak G waaw ak F ak G boobu xam naa loolu mat naa leeral xam nga loolu dafa dafa wuteeg hépatite toxique bi nga xam ne moom li ci ëpp mën na bañ a doon virus bu dugg directement waaye yenn yi ngay jëfandikoo ñoo la koy teg lu mel ni sàngara sàngara dafay tege hépatite waaw hépatite bi nga xam ne mooy hépatite toxique waaw kon naankatu sàngara yi ñi nga xam ne ñu nga ca rek ñoom ñi ci ëpp dañuy amee hépatite waaw ak ak ñi bëgg garabu tubaab yi waaw ñi nga xam ne foo leen fekk rek ñu ngi naani doom foo leen fekk ñu ngi naani doom ñoom lu ndaw ñu ngi naani doom te nag gis nga nag ma wax leen ko tey tendance bu xew bi mooy bio gaa yi nañ dellu ci gàncax gis ko yenn gaaral yi ngeen dégg yëpp naan garab wolof nii garab wolof naa garab yooyu wax ju wax ju yàqu de nañuy dellu ci gàncax di ci faju parce que mu ëpp sécurité waaw bu tubaab bi moom xay na bu demee ba ba demee ba sës pexe amul ñu ne laa foog nga dem hôpital ba kat bu boobaa nga def luñ la wax rek. waaye de boo boo boo fonkee sax gàncax nag mën nga bañ a yegg foofu parce que tubaab bi ci boppam reconnaître na ne médicaments yi dañuy dañuy joxe hépatite boo ci xaabaabale wala nga jël ko te waroo koo jël waaw xam nga man waxuma bu léegi baaxuñu waaye xaabaabal ci wala nga jël ko te waroo ko koo jël ndax sax dinañ la avertir yenn saa yi boo liiree notice ba ñu ne la garab gi de yow lañ ko bindal. sa garab la bu ko digal keneen kat ah, biir bi métti mool dal ñu bindal la ko waaw ah, bul def ko biiram ku biiram nga jox ko mu naan ko xamul ndax moom war na koo naan ah. te gis nga bi fi gën a siiw mooy bi ñuy naanante nii pour bopp yu métti garab googu rek waaw ko gaa yi yabee waaw ko gaa yi yabee ku sa bopp yu bopp rek nga daw jël di naan di naan di naan di naan. lépp la gàncax mën a fajal fajoo ko ci wàllu gàncax waaw nañ ci bàyyi xel kon garabu tubaab yi di leen jëfandikoo lu jéggi dayo mën na laal sa foie jural la tawati hépatite ndax hépatite tawati foie la res lay laal waaw kon loolu ci lenn la ci hépatite toxique yi tamit mën nga koo jëlee ci yenn yi noon noy yi ñuy tuddee produit chimique gis nga bés yi ñuy pompe ci kër yi te pour dàq ay yoo di ko noyyi mën na la ko jural wala yooyu di nekk ci meññeent yi ci firwi yi waaw ci ñu leen tuddee pesticide te gaa yi di ko def ci firwi yi rek ngir développer leen fekk ñoom it ba kese lañu te lu naqare ràññee la ci yi waaw yooyu ñu tuddee pesticide xam nga loolu loolu mat naa leeral kon nag gis nga hépatite yi suñu jéem a tënk rek bari nañu forme waaw mbokk mi di laaj moom aalay laaj na ne loolu lañ ko wax la amee waaye nit mën na dem ñu ne la B nga ame wala C wala D wala E wala F wala G waaw F ak moom daanaka bëriwuñ bëriwuñ c'est très rare nga gis ko yii moom dañoo bari waaw euh, li ñu war a leeral tamit mooy nit ki bu amee tawat bu boo koy wax booy wax ak moom danga koy wax lu nekk ci jàngoro ja waaye bu ko ci tiital wala wax ko ci lu amul waaw yi hépatite bëri na ci jamono waaye nag dañoo war a wax ñi amee feebar bi ne ñi ëpp ñi ëpp ci ñi amee hépatite seen hépatite de wér même buñ ko fajuwul xam nga lool foog foog foog foog ñu koy annoncé waaw foog ñu koy annoncé maanaam mënoo tëb ne ah hépatite de wóorul jàngoro ji day def ni jàngoro ji day rayee jàngoro ji day def nii day yàq fois day def nii te waxoo li ci nekk ndax téeméer nit yu am hépatite quatre-vingts mën nañoo xëy ñoom seen hépatite jékki-jékki ne fes ñu mel ni mosuñu am jàngoro ji waaw hépatite ba wér nga yeewu rek ñu jox la rendez-vous nga ñëw ñu defal la sa analyse xool ñu ne waa ana sa hépatite bi dem na loo naan nga ne ah naanu ma genn garab ñu ne ah yow de alhamdulilah jàngoro ji dañ na man xam naa ci ñu bari kon nag jàngoro ji nga xam ne naam tour wi yegg na fenn waaye ñëpp ci ñi ñi ko amee xëy nañ mu dëñal seen bopp dëñal boppam jàngoro jooju kenn du du ko utiliser pour tiital malaat bi ndax nag taux de guérison bi mu ëpp que ñi nga xam ne daf leen di lor xam nga loolu dafa mat di leeral ñi ëpp ci ñi amee hépatite jàngoro yi dafay dafay dem dafay xëy dëñ waaw li ñuy tuddee guérison spontanée yéen ñi jàng tubaab waaw guérison spontanée waaw ñenn ñi faj wuñ la parce que parce que bu dee tubaab bi moom amu ci amu ci amu ci pexe ñoom lañ lay wax mooy demal digal la régime amuñ la tere ñu ne la six mois yu ne nga ñëw ñu defal la bilan ñu xool waaw ndax laalul sa foie kon ñi liñ ciy tiit rek mooy mu laal foie foie bi waaw man de am na ñu ma ci traité yàlla dimbali na ba seen hépatite dañ na waaye ñi ci ëpp bu laalee seen fois bu ñëwee man damay damay dégager sama responsabilité dama leen di wax ne da ngeen da ngeen di yéex a ñëw mënuma ci dara ñi ci ëpp seen foie loolu laa leen di wax da ngeen di da ngeen di yéex a ñëw mënatuma ci dara ndax bu boobaa boo ci duggee rek mën na doy war waaye daal nga yëg jàngoro ji nga ñëw di faju ci wàllu gàncax. mën na wér complètement ba jeex tàkk ci yow te faj bi moo gën a wóor waaw xam nga faj bi lu tax moo gën a wóor naam sax hépatite ñi ci ëpp seen bos day xëy dem waaye nag am na benn benn yi nga xam ne du dem dafay nekk ba chronique moo tax ñuy tudd ñuy wax hépatite aiguë di wax hépatite chronique bu chronique nag nekk ci sa yaram nag bu yàggee boobu la ñuy ragal mu dem ba laal sa fois bi commencé ko yàq ba jural la li ñuy tuddee cirrhose wala cancer du fois te comme que yow xamoo ndax bi nga amee day xëy jékki-jékki dem bul toog ne di wax ne ah moom danay jékki-jékki rek demal boppam karawul jarul sax ma ciy jéem dara te fajul rek parce que xamoo ndax yow da ngay bokk ci pourcentage bi nga xam ne dañuy xëy rek wér wala da ngay bokk ci ñi nga xam ne nag ah suñu borom daf leen di nattoo jàngoro ji di évoluer di évoluer di jëm kanam di jëm kanam balaal seen fois kon nag bu boobaa xam nga euh, traitement mooy gën waaw ba may limite ci yi koy tege ci yenn xeetu hépatite yi hépatite yi nga xam ne virus duñ ko tege yi may tuddee hépatite toxique am na yenn xeetu jàngoro yi nga xam ne su nekkee ci yow mën na mën na évoluer bu jural la ko jàngoro yooyu la metsin di tuddee les maladies auto-immunes waaw am na yenn xeetu doomu jàngoro yu ñu tuddee parasite luñ suñ la duggee mën nañ la ko teg waaw xam te xam nga parasite wute naag virus moo tax man lu de hépatite yëpp ñooy hépatite virale am ñi xam ne virus duñ ko tegee hépatite bii ma mooy hépatite toxique yaram dino ko tegee waaw yaram dina ko tegee de waaw nit ku xëy rek commencé am yaram waaw bu ko defee rek dem ba sëf fois bi sax àttanutul yu bari ci ngay jëfandikoo fois bi tàmbalee yàqu ah nga amee tawati hépatite kon loolu nañ ci bàyyi xel mandarga yi ngay yëg nag yow mi amee benn ci xeetu hépatite yi gis nga mooy li ñuy tuddee malaise foo toll ah, yi nga mën a yëg boog laay wax malaise mooy nga mel ni ku xaw a jànnaxe rek waaw mel ni da jékki-jékki rek nekkoo fi walla nga nekk ku ñàkk appétit wala ngay jeex wala coono yomb la wala nga amee insomnie waaw xel muy tee woccu biir buy metti biir buy daw tàngaay yaram uh, bët yu xal la walla yaram wu dem ba jaune ngay mel ni ku ame pays wala bët yi ci ñoom tamit waa mel nii rek pays nga amee yooyu yëpp ay màndarga hépatite la kon yii nit ki mën na koo yëg waaye mën nga amee jàngoro benn ci hépatite yëgoo dara ci lii loolu ñuy tuddee cas asymptomatique ah jàngoro ji bi ngi ci waaye yëgoo dara yow daal dem nga ñu wax la nga ame waaye hépatite bi sonnalu la tàngul sa yaram wëcculoowu la sa xel teewul jeexuloo ñàkkooy nelaw yow daal ma nga ci sa yaram rek waaw loolu dañuy ñuy tuddee cas asymptomatique kooku mun nga am chance mit moom mu teel a xëy génn waaye comme ko xamoo xamo xamoo nu muy mujjee yow yow fajul rek fajul rek loolu dañ ciy bàyyi xel toujours nag faju nag boole ci bàyyi yenn xeetu lekk yi nga xam ne mën na mën na mën na gën a yëngal jàngoro ji bu dee ñii naan sàngara ah, nañ bàyyi ndax musiba la ba si boisson yi jus yi ñuy jaay nii ci commerce bi wala boisson yi ami gaz yi yiw mi am hépatite yëpp yooyu yëpp daw leen ba ci lekk guñ saaf ba ci pomme de terre bi ñu ñu ñu ñu ñu ñu firit nii waaw pomme de terre frite dawal jëlal pomme de terre buñ baxal mooy tane lekk gu bari diw yooyu gaa yi bëgg rek maafe eh, dëxiñ xeet yooyu nga xam ne day bëri diw diw diw diw bi di xelli eh, dawal de dawal yooyu daw ko rek ah, jamono jooju daw ko waaw ah, bër bi moo doon waxtaanee démb it soo demee ba gis ci yow tabu tawat hépatite nga bàyyi moo gën yàpp wu daw ko ak li ñu tuddee charcuterie yooyu ngay dégg ay saucisson xeet yooyu bu ci laal dara waaw soo ko defee rek eh, yaa ngi ci yoon wu baax bi boo ci doole tuuti traitement rek mën nga dem ba hépatite bi teggeeku la su dee nag ci wàllu gàncax moom yiñ ci mën a digle waaw yiñ ci mën a digle am na eh, am am am ñax la rek daanaka am ngajj la mbata mbata lañ koy tuddee moom ak mbanta maare nag niiroo nañ lool xaw nañ wute tuuti waaye daal sore wu ñuy mbir xobi mbata danañ ko faje jàngoro ji boo amee ngëbu loxo ci xob yi rek nga baxal liitar ndox ba mbax sotti ko up ko bu demee ba nugg nga di ko jël par demi demi kaas digg kaasu weer suba ak bëccëg ak ngoon mën na la aar ci jàngoro ji mën nga mën na dem ba jàngoro ji teggeeku la ah xobi mbantamaare moom it noonu rek noonu moom soo amul mbatt tamit xobi mbantamaare mën nga ko jëfandikoo noonu waaye nag muy mbatte bi ak muy mbanta mbantamaare dig digaluñ ko jigéenu wérul kon nag jigéenu wérul moom bu mu ko jëfandikoo garab gi ñuy tuddee farxañ reeni reeni farxañ waaw wut ci ñeenti ren baxal ko moom bax ci liitaru ndox digg kaasu weer suba bëccëg ngoon mën na laa dimbale waaye ngay faral di jëfandikoo sexaw ak limon waaye ñaar yooyu jàmbaar lañ ci jàngoro ji sexaw ak limon soo defaree sa kaasu sexew nga jël benn doomi limon bu fere dagg ko ay rondel da nga koy tëmbal ci biir sexaw bi waaw nga koy dëm tëmbal ci biir waaw nga xam ne da nga koy bàyyi ci biir xel naan kon nag limon bi jarul pàccal waaye da nga koy tëmbal rek ci biir sexaw bu tàng bi su la neexee si sa cafetière directement nga bàyyi ko ci diir xel ci naan ngay faral di boole carotte ak laaj moom it lu ci aay la day wéral hépatite carotte carotte bi nag da nga koy ràppe ci misaal boo amee juróomi doomi carotte nga nga ràppe leen waaw nga leen nga fejar ñeenti kembu laaj jaxase ko carotte boobu nga xam ne da koo ràppe ba mu nooy nepp ba nekk li ñuy tuddee purée nga jaxase ko ak laaj bi nga wut sa benn pot pot pot benn pot pot bu mën a tëju potu verre nag moo gën nga def ko ci biir su dee yàlla may na la nga am frigo sa kër nga nga ka fay denc nag gis nga melage boobu boo xëyee jël ci kuddu gu ndaw balaa ngaa lekk dara soo demee bu guddi balaa ngaa tëdd jël ci beneen kuddu gu ndaw saxoo ko rek di nga dem ba hépatite bi teggeeku la incha allah ndax jàngoro ji wér la. te jàngoro ji nag li matal leeral lu ma dikkaat ci mooy ñi ëpp ñim daal dañuy wér dañuy xëy rek mu wér waaw kon nag foo waxee ne jàngoro ji am na ñu muy sonal ba laal seen foie war ngaa waxee ne nag ñi ëpp dañuy wér bu ko defee loolu dina dalal xelu malaat bi waaw ah, sa jàngoro ji ne du dara waaw ëpp ñim ñim daal wér nañu te am na sax ñi nga xam ne faju fajuwuñ dara fajuwuñ benn yoon jëluñ genn garab dañoo bàyyi yenn yi rek ndax am na jàngoro yi nga xam dañ naan sax li koy faj mooy nga bàyyi lii rek bàyyi lii jëlal lii bàyyi lii jëlal lii waaw lii eh, sëñ boo waxoon rek ne malaat booy faj na dogu ci bàyyi li koy li tege jàngoro ja ba pare ngir nga mën kaa faj su dee bawu ko nag day sonal boppam yow mi koy faj da ngay sonn waaye du leen ci am ndam eh, kon nag loolu ma doon waxtaan wi tey mbokk yi xam naa balaa ma tëj rek Eh, ñu may ma ko rek balaa ma tëj mbok yi may déglu ma fàttali leen garab gi li may wax nag jotagul ak hépatite dara garab gi nga xam ne yàlla dogal damaa ko liggéey man professeur Abbas dee ko la roquette dama liggéey genn garab tu dee ko la roquette xam nga lu ko tax a jóg faj wàllu néew kàttan ci sëy góor gu néew kàttan mu yàgg laa dal mu doog laa dal ak num la mën a dikkee garab gi da koy faj incha allahu rabbi waaw waaye nag yemul ci loolu baax na ci wàllu seere baax na ci ballonnement baax na ci yaram wuy métti baax na ci coono kon ñi dëkk fii ci Dakar te soxla ko mën nañ ma woo ci 77 786 65 19 su dee Touba ña fa nekk te soxla garab gi mën nañoo woo sëñ Moustapha Diop ma ngi foofu ci Touba numéro am 76 383

même su dee nekkoo ci dëkk yi nga xam ne lim naa ko man boo ma woowee directement naa wut pexe boo jotee ci garab gi incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah